dal nag jàmm ci leeral tv leeral point net tey jii ñu ngi daal di xëyee ci suspension du grève bi nga xamante ne daanaka demoon nañ ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo séq dem beeg dikk bi loolu ñu daal di ko xam muy grève des transporteurs gannaaw rek ab audience bi nga xamante ne amal nañ ko ak Serigne Mountakha Mbacké mile gannaaw moom it itamit gannaaw bi mu leen daal di ñaanee rek daal ñu daal di tekk lépp loo xamante ne luy grève bi la rek daal ndax askan wi tamit gisuñ ci seen bopp waaye moom ci boppam nee na dana daal jox ay jéego ngir rek daal rataxal diggante transporteur yi ak gi lee gannaaw loolu délégation gi nga xamante ne ki ko daal di jiite mu yàlla sandooy moom nag daal mu jiite délégation des transporteurs gannaaw rek daal fële euh, ca dëkku soxna maam jaara bale ñu daal di dem ca Poroxaan ab délégation gi nga xamante ne gisee nak xalif général gi lee ñoom nag ñaan lañ leen ba teg nañ lépp ci suuf ba naka demb sax demb ci guddi am na sax daal ñu commencé di dawandi muy rek daal li nga xamante ñoom ci seen bopp daal dañ koy daal di rafetlu bu baax a baax ci loolu tamit ñuy daal di àddu ci leneen daal di teg ci mi maanaam assemblée nationale di xam ne rek daal ci yéene kaay gilee coalition wàllu moom ngi tamit di jël ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré ci siège am gilee boobu ndax ndax dañoo approuvé ni ni mel rek daal ñuy daal di wax ne ci lu toll ci dix yi nga xamante rek daal voté nañ pour moom mu daal di tekki nomboy tànkam six contre ñi nga xamante rek daal ànduñ ca naka noonu buñ sukkandikoo ci libération di xam ne rek daal fu ne nii daal nekkatu ko waaye Mimi Touré kat li mu daal di xamle mu moom nag ni ko ñëpp yëgee la ko daal di yëgee gannaaw rek daal loola waaye moom ba tey jii combat gam ci la gën a déterminé ndax li nga xamante ne moom mooy troisième mandat Macky Sall moom loolu du ko seetaan benn yoon te itamit lépp loo xamante ne yoon may na ko rek daal ngir contrer ñi nga xamante ñoo ko daal di bëggal ni ni dana ko daal di def maanaam bépp recours boo xamante rek daal mën na ko déposer moom du bàyyee noona ñeel ba tey jii rek daal ci coowal troisième mandat gi nga xamante ne itamit yéeme na lool waaye fu mu ne nii troisième mandat hausse des moom ci boppam li mu daal di xamle rek daal Macky Sall gouvernement guilée bu fekkee rek daal bañu ñuy def fair play bu moytuwul askan wi moom mooy dem jëlee ko ca palais googa ba noppi tamit teg fi ku fa neex ca loola tamit di xam ne ki nga xamante ne moom mooy leader du parti GP muy rek daal grande ci boppam li mu daal di xam ne rek daal muy président Macky Sall moom kat daal dafa échoué ci plan yëpp kon na xam ne population gaa ngi souffrir surtout ci dund ci seen bopp lu ñu daal di bañandi rek muy dëkk bi kat dara doxul ca loola wax na ci li nga xamante moom mooy coupure courant geeg dundaay gi cher gi ak ni ni mel waaye tamit ci rapport cour des comptes ga waaye li mu daal di xamle rek daal muy Macky moom présidentiel maanaam troisième mandat am na ko daal di teg ci suuf bu béggee lu jàmm ne ba tey jii ci leeral li nga xamante ne moom mooy arrestation nit dof mile naka démb rek daal lañ ko daal di def mandat de dépôt une semaine yi muy jàbbante ci loola ñuy daal di xam ne rek daal fu mu ne nii Maham Diallo dóor na ko mandat de dépôt ci loolu tamit lu ñeel ci li nga xamante ne rek daal moom mooy drogue dure maanaam rek daal poudre gi nga xamante ne muy trafic illicite naka rek ak patrouille bi nga xamante ne fële ca Kédougou jàpp nañ ci lu toll ci huit cent kilos de cocaïne yoo xamante ne. drogue dure la loolu nag muy liggéey gu mucc ayib gi nga xamante ne takkader yi amal nañ ko lu ñeen rek daal takkader yi ba tey jii naka demb moo nekkoon cérémonie de sortie de la 46e promotion de la police yi nga xamante ne naka demb rek daal lañ ko daal di amal teewaayu première ministre muy eh, Antoine Philips John naka noonu ñuy daal di xam ne rek daal lu ñeel loola. ñu daal di xam ne rek daal muy dina daal di ci lu gën a bari ci police gile ngir rek daal renforcer kaaraange gile ñenn ñi nag dinaan lim ci daal di jublu ci recrutement police gile lim daal di wax ak lim bu takku gi nga xamante ne wax na ko ca. toll ci ñeenti junni recrutement yi nga xamante ne danañ ko daal di def ci police gile maanaam rek daal ngir yokk kaaraange. tamit ñu daal di àddu rek daal fële ca Rufisque gannaaw ab bâtiment bi nga xamante ne daanu na ci ab waay boo xamante ne quatre-vingt-dix-neuf ans la daal di am rek daal mu daal di faatu ci saa ñuy daal di xam ne kër googu nag daal gannaaw dal ga mu daal di wàccee ca la ko daal di woon yóbbaale mu nekk rek daal lu metti lool waaye ñuy daal di xam ne li ni mel kat daal ñu ngi koy gisandi fii ci Ndakaaru ak ci mbiim réew mi lee muy lu gën a bari ay bâtiment yi nga xamante ne ba tey jii dara wóoru ca noonu lañ koy daal di seetaane ba njëy am nit ñi nag taxaw daal di wax ne ni ni mel te mënoon nañ def leneen kon nag ñuy daal daal di xamle lii moo nekkoon lu gën a fës ci leeral point net